tollu ak euh, yëngu-yëngu yi ci am ci sous-région bi dafa naa ne laaj na ñu réfléchir xam fan la dem ñu bañ jël yoonu fitna euh, di mandu te ñu respecter peuple bi parce que peuple bi moo am voix moo mën a tànn ku koy jiite kon nag bu fekkente ne jaar nañu ci yoonu démocratie defe naa ne dinañu am jàmm